dafa am wayantu dafa am wayaloo dafa am ana bu ca gën mooy jéem a wayal gaañi ana bu ca gën mooy jéem a wax ak gaañi seetaan fii ci Star TV ñu am mbégte kontaan dellu si waat ak yéen ci pencum Sénégambia leeral dépassé ko di Africell MMG Mobile Shop ak Sophie rek ngeen ànd ak seen xarit seen soppe Seydou kamara ak Omar Tunkara dinañ ànd ak yéen ci xibaar yi ci kaalaamay Kocc Barma yu réew mi bu ñu fa bàyyeekoo ñu dem seeti xibaaru bitim réew yi rawatina réewu tugal yi su ko defee ñu mujjee ci yeneen xibaaru bitim réew ci réewu Sénégal waaye laata loolu damay dalal suma naataango Omar Tunkara moom it mu ook askan wi Omar nuyu naa fay naa la Seydou di la nuyu di nuyu askan bi nga xam ne jamono ji ñu ngi seetaan Star TV di leen wane dal leen si jàmm ñu dellusiwaat ak yéen si beneen programme bu pencum Sénégal bi wala boog leeral andi xibaar yi nga xam ne ñoo fës si àdduna si rawatina fii si su ko defee ñu andi xibaar ne ñoom ñooy ah, ñoom ñooy gën biir réew mi foofu la sa bitim réew mbokk yi benn tey rek ñu leen di fàttali leen mun ngeen ñoo topp rek ci Star TV ni ngeen def mooy da ngeen di dem si seen eh, Facebook bi rek su ko defee ngeen daal di bind Star TV Gambia di ngeen jot ci programme yi nga xamante ni ñu leen koy indil rawatina li nga xamante ne moom moo nekk pencum Sénégambia leeral su ko defee rek ngeen teewlu ñu ànd ak Omar Tunkara ci xibaar yi fii ci biir réew mi. li may xibaar yi fi ruusee ci biir mi. jërë ngeen jëf ah, mbokk yi su ko defee dal leen si jàmm ñu dem seeti ji yéenekaay bi di ah, standard newspaper ndax si standard newspaper seen i xat mi ñàkk mi li ñu fa andi moom mooy coowal UDP bi ak Barrow Youth Movement bi na ne waa UDP na si seen député yi kii moom nii daal eh, jàpp na moo nekk seen i noon bu gën mag nag fii si biir loolu doon loo xam ne ñoom ñu ngi koy naqalu bu baax a te jàpp na ne loolu doon loo xam ne tamit lu am nag fii ci biir mi coow mi nag léegi jàpp jàpp na nag moom moo nekk seen rival mooy nekk seen noon fii ci biir mi ñi nga xam ne ñoom la ñuy bu dee élection nag am na ndaxte jaarale nag mooy si Barrow Movement bi président Barrow nag mu

mu ne lii daal dafa nuroo ak former président Jammeh nag Green Boys am ñi fi nekkoon yooyu ñëw moo nuroo ak nga xam ne nag moom Movement mu ne dara utewut si ñoom UDP léegi fu mu nekk Movement bi i ah, yi dañoo bokkoon si ñoom maanaam ñu nekk si Barrow Movement gars yi dañoo bokkoon si UDP waaye léegi daal génn nañ fa tey dañu bëgg a samp seen political party fii si bërëm te loolu fu ñu ko bëgg a nag mooy si Barrow Youth

loolu la bëgg def naka fii ci biir réew mi mu UDP naka ah, mu ne ah, ah, a waaj nag loolu moom nag moo nekk député bu te loolu ñoom nag ànduñ si benn yoon ndaxte ñoom jàpp ne ne loolu warta mun am te waaye ñu ngi jàngal li nga xam ne nag moom moo di ay jëfam xam mu koy def nag fii ci biir waaye waaye UDP képp ku gëm boppam daal dafa war a daal di euh, condamn li nga xam ne nag moom moo di Barrow Youth euh, Movement bi suñ fa bàyyeekoo benn tey dañuy continuer rek dem seetiwaat euh, beneen xibaar ndax nag niw ñetti góor ñi nga xam ne nag dañoo bokkoon si attaque nga xam ne defoon nañ ko foofule sax palais ba si fanweeri fan yi si weerum décembre atum 2014 wane ne seen i niw yi nag dañ ko delloo i njobooti pour ñu denc leen comme ni ñu dencee jullit ndaxte naka ñu leen ko jox nag i euh, ministre bi si boppam moom moo daal di leeral li nga ne nag moom moo di xibaar bi dana comme ni ñu ko waralee euh, si xibaar yi nga xam ne nag jot nañ ko euh, ñoom nag wane ne daal ne new yooyu fu mu nii daal ràññeen nañ leen ndaxte dañoo andi woon ay borom xam-xam ne ñoom loolu moo nekk seen i liggéey andi leen gars yi fii ci bërëm yi gannaaw buñ sullee gars yi foofu la sa tintimba di dëkk bi nga xam ne mu ngi foofu la sa boori ba pare na def nañ am njàngat si ñoom ràññeen nañ ñoo ñooy ñan te xam nañ ne daal ñoom ñoo bokkoon si attaque bi nga ci biir loolu nag ne bi ñuy jëyee ab niw yooyu foofu la sa lii di of justice seen i njoboot yi nag ñu ngi fa woon nekkoon nañ fa te amoon nañ kàddu yi nga ne gaaral nañ ko foofu nag si kanamu askan bi nga xam ne moom moo teew woon foofa te loolu nag ñu ngi ko defee woon tamit foofu la moom moo nekk euh, euh, weejuru bu jigéen ki nga xam ne nag si yàlla si colonel euh, Lamine Sané mu ne moom nag former président bi doon na koo xam ne mu ne kooku amul xol si yaramam bi comme ni ko waralee mu ne former président Yaya Jammeh kooku nekk na ni koo xam ne nag amul xol madame Ndiaye nag wane daal mooy yaay ji mu ne moom si boppam dañ ko arrêté woon gannaaw bu ñu euh, defee attaque bi pare la ka fii ne si at booba gars dañ ko arrêté woon waaye na ne mu ne colonel Sané kooku nag gannaaw ko daaxee si ami bi kooku dafa génn réew mi dem foofu sa United States of America mu ànd nag ak njabootam mu moom dong moom moo desoon nag fii si euh, biir réew mi moom yaay ji comme ni nga ko wéralee mu moom daal xam na ne daal doomam ji Euh, kooku nag dafa mel ni dafa bëggoon a delloo jàmm fii ci biir ndaxte xam na ne jàmm jàmm nag amul fii ci biir réew Gambia te moom bu mu dëkkee foofu des Amérique am na amaana ne jàmm bu mu fa dëkkee am na ñoo xam ne dëkkee wuñ ko nag fii ci biir moom moo tax mu dellusiwaat pour mun a xeex nga nag moom moo di jàmm su ko defee réew mi mën a moom boppam mu ne ñoom xam nañ liggéeyu soldaar mu ne liggéey soldaar yombul benn yoon bokk na si li ngay def mooy da ngay de si dem si réew yu jàmbur yi su ko defee nga dem foofu di fa delloo jàmm waaye yaa ngi dem réew jàmbur di fa delloo jàmm te yow a a delluwaat si nga xam euh, si yàlla si kooku tamit wane ne daal mu ne coup plotas yi mooy ñu doon def coup booba mu ne bañ duggee State House mu ne Ndiaga Diagne moo wax gars ne bu kenn sokki ab bal ci kaw ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk foofu la sa State House ndaxte ñoom ñu ne dañoo wunoon pour rey doomu aadama yi nekkoon foofu la war a bokk euh, doomu réew Gambian ñoom li ñu ñëwoon pour def mooy pour génne euh, dëkk bi nag si loxo ki ne nag moom moo dafa bokkoon si nit ñooña te am na yeneen dëkk yi nga xam ne demoon na foofu fi nga ne xeex moom fa woon te fa demoon pour daal fay delloo jàmm mu ne doomam ñi nag bokkoon ñi nga xam ne dañoo demoon foofa kon nag ñoom dañuy sant yàlla bu baax a baax si dund bi nga xam ne na ko nag si cër bi nga xam moom la daal di delloo nag fii ci biir réew mi rawatina uh, bu góor moom moo fa nekkoon uh, uh, moom moo nekk mag bu góor si nga xam moom moo di Njaga Niass Njaga Niass nag wan ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen i bakkan nag si attaque booba ndaxte nag moom kii di alaaji wan na ne moom dafa feebaroon alaaji nag ñu ne ba mu feebaree wane ne dafa yegaloon magam ji ne daal dafa feebar waaye kooku daf ko wane daal amaana malaria moo la jàpp buñ defee na test bi na si lañ gis ne kooku dëgg-dëgg malaria moom moo ko jàpp si la ko wane daal léegi yow da ngay i niw yi nag jotal delloo na ko seen i njaboot yi pour gaay euh, ni ñooy dencee jullit nag wane ne euh, weer yu woon nag yëpp nag dañ ko euh, jëloon nag di ko def ab jàngat di si def ab jàngat pour ràññee nag ñoom la wala boog di ñoom te wan na ne si dëkk bi ñëw wa tintimba nekkee foofu la sa bori bu yam foofu lañ suloon gars yi nag balaa gannaaw guñ euh, faatee ñoom seen i bakkan nag fii ci euh, biir réew mi suñ fa bàyyee ko <clears throat> dañuy seetiwaat beneen xibaar bi nag ñu ko jëlee foofu la sa State House maanaam si pale bi ndane nag askan bi la njiit réew mi di yëgal ne His Excellency President Adama Barrow di yëg ne daal am na benn kayit maanaam appui bi nga xam ne mu ko jotee nag bàyyi ko si waa Faraba dëkk bi di waa Faraba ak ñi fa dëkkee di wane ne daal ñoom seen bugga bugga fu mu toll nii mooy ne buggatuñ nag pour de gars yi daal di continuer atte bi nga xam ne ñu koy def officers yi nga xam ne nag dañoo jàpp ne dañoo amoon loxo si coowalu faraba bi fi nga xam ne ah, ñetti nit ñàkk nañ seen i bakkan nag si wérum lii di juun booba fukki fan ak juróom-ñette si wérum ah, juun atum 2018 nag comme ni nga ko wéralee community bi nag ah, maanaam waa faraba <coughs> jaarale ko seen alkaali bi Mr Omar Kujabi ñoom nag ñoo daal di bind ab lettre lettre bi nag ñu yóbbante ko si président bi lettre bi nag bañ koy yóbbante dañ si bindaat di ñaan

comme ni ah, commission commission bi nga xam ne dafa gestu li xew foofa waaye tamit dafa ne kooku it dafa bu ñu seen liggéey ba pare dafa am nag recommandation si nga xam nag moom lañ bindal président bi te kooku si boppam dox na si nga xam nag moom mooy recommandation si yooyu kon nag ñooñu ne ne rafet waaye nag lu ñuy sàkku li nga xam ne moom moo di président bi mooy mu baalal ñi nga xam ne jamono jii ñoom ñoo am loxo si li nga xam ne moom moo di problème yooya ndet nag wane ne daal ñoom amaana jàpp nañ lii bu amee daal dafay delloo jàmm ak foofu de sa Faraba si ko loolu nag président bi ñu ne moom nangu na ñaan mi nga xam ne nag waa Faraba ñaan nañ ko ko léegi daal jéggal na gars yi te li nga xam ne nag moom moo di process bi nga xam ne jamono ji mu ngi yoon si ATK ya moom itamit nag nangul na ko gars yi daal daf koy génne foofa charges yi nga xam nag moom la tegoon gars bu Geology Department ak tamit executive directeur bu National Environment Agency war na leen te ñoom ñëpp dañoo seen liggéey naka fi si abiromi kon naka lii war na daal président bi moom naka baal na gaay jéggal na gaay si ñëwaata fi ne nag defoon nañ ko naka fii ci abiromi waaye nag gannaaw press am na beneen boo xam ne moom it moo génne foofu euh, euh, mi ñoom itamit nag wane ne daal euh, si njaxare bi nga xam ne office of the president nag wane nañ ko jëmale ko nag si Euh, benn euh, appel bi nga xam ne waa Faraba nag bind nañ ko daal di ko yóbbante président bi pour mu baalal leen si nit ñi nga xam ne nag dañoo jàpp ne dañoo amoon loxo si li amoon foofu la sabiri Faraba wane ne doon la loo xam ne naka jamono ji président bi daf doon wane ndimbalam rek nag daf doon wane li nga xam ne tamit moom support bi nga xam ne nag war na koo defar waa Faraba Banta si li jëm li nga xam ne nag moom moo amoon foofa ndax nag wane daal request bi nga xam ne nag gars yi def nañ ko amaana nag ñoom war na leen de waaye nag ki nga xam ne nag moom moo di ah, bi li doon na loo xam ne daal moom daf doon wax li nga xam ne nag moom moo di daf doon def li nga xam ne nag moo di li ko war nag ah, maanaam mooy support ah, waa Faraba nag fii si biir réew waaye nag lettre bi si boppam buñ ko bàyyee xel bañ ko bindee daal fuñ ko jubali mooy si attorney general Chambers mooy jëriñ buñ dénk wàllum luwaay fii ci biir ak nga xam ne moom moom moo aju si wàllum yoon nag fii ci biir réew mi te alkaalo bi moo ko bind daal di ko yóbbante foofu de sa ministry of ñu ne mbir moom ba léegi de ñu ngi koy seetuwaat de ndaxte kees bi ba léegi nekku na dafay génn foofu de amaana président bi moom gis-gisam la laa di wax waaye tamit li nga xam ne nag moom moo di yéenam wane na ko nag daal di ko jëmale si li waa Faraba waaye nag mbir mi jamono ji mu ngi si loxo buntu attekaay nag a baax nekkul ne na ko foofa doon na wax yoo xam ne la euh, la jaar te ñoom nag lettre bi bu ñëwee tamit foofu la daal jaar waaye nag président bi yéenam la daal matal waaye tamit wane li nga xam ne moom moo di support bi nga xam ne war na wan li nga xam ne nag moom moo office of di ñi di community bu li di Faraba waaye nag ñoom daal wane ne daal li nga moom moo mbir mooma ñu ngi koy seetuwaat bu baax baax si buntu àttekaay yi te lu lu si munti nekk rek dina si jokkoo ak li nga xam di askan ko defee ñu daal di yégal askan bi rawatina famille si li nga xam ne nag moom moo di victimes yooyu nga xam daal di génnee li nga xam ne nag moom moo di kees boobu si loo a dem ba bu buggee jéggal gaay mu jéggale waaye kees bi si boppam daal dañ ko commencé waaye nag jeexagul nag fii si biir comme ni nga ko euh, wéralee su ko defee dinañ dem seeti ji yéen kaay bi di euh, Foroyaa newspaper na si Foroyaa newspaper dinañ fa seeti ji Ibrahima Ismaila Chongaan Ibrahima Ismaila Thiongam nag soo leen di bàyyi xel na fan yëpp passé ñu ngi waxantoo ay mbiram fii ci bureau mi ndaxte mooy sernde bi njëkk bi nga ne feeñal nañ ko si euh, commission bu bees bi nga ne ñu na ko fii ci bureau mi ak nit ñi nga xam ne dañ leen rey wala boog nit ñi ne nag jàpp ne ne dañoo yàq seen ak seen yelleef nag fii ci bureau si jamono bi nga ne nag wan ne ne military junta bi nag mu doon jiite li nga ne nag moom moo di ak nit ñi ne leen leen téyewoon nag tëj leen foofu la sa kaso yi am naka kàddu yi nga xam ne wax na ko foofu de mu ne ndax saabali ak Haydara bokk si nit ñi nga xam ne wala boog si soldat yi nga xam ne ñoom ñoo daal di defoon coup d'état booba def génne fi ki nga xam ne nag moom moo di former président Jawara si ba mu doon jiite li nga xam ne moom moo di réew Gambia ne jamono jooju rek daal jël li nga xam ne moom moo di bopp lëngay doxal réew mi nag si seen xalaat comme ni nga ko waralee ne daal Sadibou Hadara ak Sana Sabali ñu ne dóor yu métti nag leen dóor gars yi euh, euh, ne kooku moo daan faral di ñëw di faj ki nga xam ne nag moom moo di Sadibou am jafe-jafe nag ko nag ana lan moo euh, moom ki di Hadara daal di génn àddina ndax liñ ko dóor moom moo mu daal di génn mu ne moom xamul ko de waaye nag xam na ne daal kooku mu yoon foofu la sa kaso yi na ne daal gars yi bokkuñ ci benn wing maanaam fu ñu ko tëj nekkul foofu lañ tëj ki nga xam ne nag Momady Haidara waaye xam na ne foofu la gars ñu doon dóor gars yi dóor na comme ni nga ko wéralee mu ne foofu la Sabiri Mile tout ñoom li ñu daan déglu mooy rajo radio and lañu daan faral di déglu te foofu lañ déggee gars yi di annonce daal euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Haidara daal moom daal génn na àddina te li tax mu mu daal di génn àddina mooy ne dafa am li nga xam ne nag moom moo di high blood pressure loolu moo waral nag mu daal di euh, génn mu ne moom nag jamono jooju fekk na ne ñu ngi woon si biir kaso bi te ñoom foofu lañ déggee li nga xam moom moo announcement bi ñu koy jaarale si li nga xam ne moom moo di rajo ne Eh, dafa am ñu doon def coup d'état nag fii ci bureau mi moom na si la dugg ci benn gaal nag dem foofu la sa biir Sénégal ndax na Sénégal bi tamit wan na ne daal mu ne moom rek moo nekkoon eh, lii di officer bi xam ne àndutoon ak ñi doon def coup d'état fii ci bureau mi mu ne loolu taxaw na ba mu daal di yëkkati gànnaayam bi daal di sokki ab bal nag seen kaw pour wane daal dafay tiital gars yi pour li ñu doon def pour nag buñ ko def waaye nag mu ne moom mu mujjee toon a continuer loola ndaxte gis na ne moom rek moo doon sokki ab bal na ne bu continuer di def loola amaana mën naa ñàkk ba kanam nag si jamono jooja moom moo tax moom itamit nag mu daal di bàyyi ndaxte moom mu doon def loola mooy ne moom xam na ne bu continuer nag di daal sokki ab bal seen kaw xam na ne nag amaana moom dafay ñàkk bakkanam si jamono jooja si leen ko laajte ndax moom xam na jàmme mu ne moom xam na jàmme bu baax a baax na tey mu ne jàmme daf daan faral di moom ñëw moom di ko ñaan li nga xam moom moo di ay xaalis ak tamit ay lekka mu ne jàmme nag dëkkandooram la woon moom moo ko tiré nag si euh, gendarmerie bi nag si jamono jooja laajte nañ ko tamit euh, moom jàmme jàmme na jikkoom bi naka la mel mu ne moom nag euh, jàmme doon na nit koo xam ne daf daan faral di mandi daf daan naan sangara mu ne moom si ah, bu mu demee ba dégg na daal jàmme léegi dañoo jël réew mi daal daal di koy teg ci loxoom mu ne si la xam ne nag Gambie léegi ñu ngee ñëw gasasi ndaxte xam ne ne gars yi ñu ngi si loxo si problème nag comme ni ko waralee mu ne fukki fan yi ak juróomi si weeru juin atu 1995 mu ne ah, Major Malick Ndiaye capitaine Ibrahima ah, Kambi capitaine Sana Sabali capitaine Keba Cissé ak corporal Alaji Kebe mu ñu yëpp nag dañ leen samaloon foofu le sa defense headquarters mu ne dañ leen wan ne daal dañ leen war a feeñal na si buntu attekaay su ko defee ñu atte leen waaye mu ne si ñaar fukki fan ak juróom-ñette si yoonu octobre atum 1996 moom centre bi nag wan ne daal mu ne président bi euh, am officers yooya ah, dañ release dañ leen euh, bi nag wan na ne euh, bokk na si nag ñi leen release mooy capitaine Ndour Thiam ak nga xam nag moom moo di Sirif Gomes ak Ousmane Badji waaye nag ñii nag wan ne dañ leen mujjoon a téye ñi leen release ñoom ñi tax ba ñoom ñu bàyyi leen génne leen si atekaay yi mu ne ñooñu la dañ leen téye rawatina nga xam moom di magistrat bi di Bory S Touré kooku tamit dañ ko mujjoon a euh, woon na daal moom ba mu ne daal jàmme dafa amee réew mi daal ci la ne nag euh, réew mi nag dugg nañ ci problème euh, comme ni ko moom kii di waa ji wérale di Ibrahima Congaan dinañ dem seeti ji kàddu yi nga xam ne président bi naka wax na ko benn tey foroyaa la ñuy continuer ak yéen euh, président bi naka am na kàddu ne na ko moom daal si camp jamonoy ba am na political party si nga xam ne dafa yëkkatoon ab kopparam génne ko si poosam daal leen di doole na seen campagne yi nga xam ko doon def fii mu ne am na ñoo xam ne 300000 dollars la ne jox am na ñoo xam ne 200000 dollars la leen jox waaye nag gannaaw bu mu waxee wax yooya waa foroyaa nag dañ doxantu dem fekk ji na li nga xam ne nag moom moo di ñeen si njiitali euh, political laaj leen ndax dégg nga président bi jox na leen si jamono bi ñu def seen campagne bi naka fii ci bureau mi waxtaan si ak ki nga xam ne naka moom Magasi bi nga xam ne bokk coalition bi ak tamit PDOIS na i executive secretary bi seen administrative secretary bi moom kii di Mr Idrissa Diallo moom nag wan daay mu ne doy dañ bokkoon ah, coalition bi waaye ñoom ñoo daan fay xool bi foofu la sa karaba bi pour coalition bi nag daal di defee seen ak seen waxtaan yi nga xam ko doon def pour mun a def li nga xam ne nag moom moo di seen coalition mu loolu nag bañ ko doon def mu ne yëfu réew mi nag moom interest réew mi la woon national interest la woon comme ni ko euh, Mr Idi Diallo wéralee mu ne Adama Barrow mu kooku bañ ko doon tànn si convention bi mu ne nag PDOIS nag tegoon nañ si nag wan na ne daal mu ne euh, parti bu nekk dafa war na te boo demee pour déposit si foofu am na xaalis yi nga xam ne nag war nañ ko fay lu toll si 1 million dalasis mu ne ñoom doy dañ teg 500000 dalasis te loolu moo nekk li nga xam ne nag war nañ ko déposité boo déposité bu dee ko boromam dem na ba win sax waa AIC dañ ne lay faral di delloo li nga xam ne nag moom moo di sa koppar mu ne moom moo di Idi Diallo daal di wane daal mu ne moom <coughs> dafa si finance committee ñoo yoroon li nga xam ne nag moom moo di wàllum koppar yooyu nag foofu la sa lii di fan bi vice ex vice président bi Fatoumatta Jallow Tamba Jang kooku moo doon jot koppar yi nga xam ne ñoom ñu waa doy nag ñu ko doon fay si nga xam ne nag moom di campagne booba mu ne moom dañ ko attaché si campagne finance team bi maanaam moom si ñu bokkaloon groupe mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon koppar yi di campagne team bi si jamono jooja ndaxte war na doy de foofu lañ ko tegoon pour bépp jafe-jafe bi nga am nañ ko si wàllum koppar su ko defee gars yi dañ fa amoon jafe-jafe bañ fa amee jafe-jafe si wàllum lii di koppar moom kii di Idi Diallo mu ne euh, seen secrétaire général bi maanaam ki jiite doy si boppam di Halifa Sallah kooku moo ko digal na daal na dem jëli li nga xam ne moom moo di koppar su ko defee ñu jël si bor euh, daal di oto yu toll si téeméer juróom-benn fukki oto 160 vehicles ñu fuyal leen nag si juróomi fan su ko defee ñoom ñu mun a continuer seen campagne bi nag fii si biiróom si kooku xam na si dara bu baax a baax mu ne kooku nag dafa mujjoon a sant ak gërëm si taxaw bi nga xam ne nag seen secrétaire def na ko nag daanaka yëkkati koppar yu mel noonu daal di koy dugal si nga xam ne nag moom bi nag comme ni nga ko waralee mu ne doy tamit yëkkati woon leen lu toll si ah, six hundred thousand dollars ah, pour gars yi dugalaa ko si nga xam ne nag moom moo bi ndaxte wan na ne driver yi nga xam nag ñoom ñoo doon dawal oto yi li nga xam team bi ñooñu nag dañu war na fayeeku seen salaire pour balaa ñoo teg gars nag problème war na ne ñoom ñoo génne coppare pour ñu daal di koy fay driver si ndaxte driver si dafa fekk ne fay ñu woon nag seen i koppar si li nag moom moo di jamono jooja mu ne président Adama Barrow nag loolu war na ko mun a confirme ndaxte moom tamit xam na si dara bu baax a baax mu moom ci boppam moo ko jox 1 million dalasis mu ne ba mu koy jox 1 million dalasis Idi Diallo moo nekk di wadde mu ne bu moo jox président Amadou Barrow 1 million dalasi mu ne vice président Ousseynou Dabo kooku fekkee na ko te koppar yooyu nag mu ko jëlee ki nga xam ne nag moom di Khalifa Sall te loolu nag doon la xam ne nag ñu bari ko xam ne ñu ko doon dugal foofa yi koppar nekkul koppar yi nga xam ne dañ ko tapale ni mu ne gàmmeen si nga nag ñoom ñoo ne ko fii si biir bitim réew ñoom si jàppale gars si jamono bi nga xam ne ñu ngi ko soloon te lii mu mun na koo leeral sax bu dee jox nañ ko ndigal bi pour mu daal di leeral nag fii ci bi bu waxtu bi jotee pour mu wax ko pour mu ba mu set mu jamono jooju nag dina ko wax nag fii ci bureau bi kon nag ñoom li ñuy wax mooy ne seen i campagne bi amaana président Adama Barrow mu si li nga xam Euh, waali di coalition bi seen bopp dugaloon nañ ko foofu ndaxte mu ne gannaaw élection bu demee ba passé daal dañ ne waxoon ne maanaam Fatoumata Jallow Tambadine dafa waxoon ne am na ne euh, si jox te loolu dina loo xam ne nag mu ne ñoom yellawuñ loola ndaxte lu ñu nag war na ëppalu la yemalawuñ gars nag ñeneen ñi nga ne ñoom ñoo si des te leen joxoon benn ñaari oto beneen oto bi sax boobu dafa amoon accident naka fii ci dañ am pour ñoom nag kenn joxul leen koppar pour ñu daal di euh, daal di dooleel si nga xam ne nag moom moo di seen campagne nag fii ci biir réew mi waaye moom bu mu waxee ba pare moom kii di honorable Magasi moom itamit nag wax na jëmale ko si moo di président bi ndaxte waa euh, coalition partner la woon moom na ne daal mu ne moom musuta jot benn butut nag si loxo ki nga xam nag moom moo di président Adama Barrow pour mu def campagne am moom sax yégal na waa ne daal moom bu mu bokkee si lii di coalition bi am na loo xam ne moom itamit yelloo na ko ndaxte waroon am koppar waroon naa am xaalis waaye waroon am li nga ne moom moo oto si loxo gars yi bu toll si 150 000 dollars yi waaye mu ne ba tey jile loolu mënu ko jot ci gars yi mu ne topp na si président bi ba sona topp na si li nga moom moo vice président office waaye ba léegi nag mënu ta jot li nga moom moo di koppar yooya kon nag loolu mu a baax mu ne képp ko jox bu baax baax comme ni ko honorable Magasi waxee mu ne moom daal kenn joxul ko koppar te président bi joxul ko benn butut ah, fii si borom mi ko waralee su ko defee mbokk yi ñu jël suñu euh, mujjantali xibaar euh, ñu dem seeti ji MC Cham Junior bu euh, GDC moom daal moom moo am lacce bi nga xam ne xajamono ji moom moo ko jaaxal ndaxte nag mu ne moom li mooy lacce mooy ne président bi ci boppam daal président Adama Barrow fan la jëlee xaalis bi nga xam ne moom la doon jël moo def fii ci bureau mi ni ko wéralee président Adama Barrow mu ne dafa war a wax Gambien si fan la jëlee xaalis bi nga ne moom la jël sponsor ko député yi pour ñu def seen campagne bi nag fii ci Bremse si atum 2016 comme ni nga ko waxee mu ne ndax depuis baro bu mu waxee kaddu bi le mu ne moom déggut benn political party wala gisul benn political party bi nga xam ne dafa dàqalu kaddu yi nga xam ne ko nag jëmale nag moom moo kon nag mu ne loolu daf ko jaaxal bu baax baax waaye nag mu ne dafa mel ni léegi GDC ak APRC rek ñooy ñi nga xam ne président bi ekkatiwul ay pour dugg si élection si nag si atum 2017 nag si weerum lii di april mu ne président bi nag dafa war a wax gamen si fa la nga xam a xam fa nag moom moo di koppar yooya daal di sponsor li nga xam nag moom moo nag fii ci biir réew mi nag ay tontu te président bi dafa war a tontu gamen si ndax war nañoo xam li nga xam nag moom moo di nag fan la ko jëlee nag fii ci biir réew lii nag mu ne war na daal njuuj njaaj mu ngi fees tëpp si li nga xam ne nag moo di nguur gi MC Thiam Junior bu jidi si nag moom daal di wax li nga xam ne nag di kàddu yi la su ko defee nag fii la ñuy daalalee xibaar yi fii ci biir réew mi leen ak seedi mu andi leen foofu la xibaar yi foofu la sa bitim réew yi mbokk yi jërëjëf su ko defee dañuy jaajëfal Omar Tunkara ci xibaar yi fii ci biir réew mi ngeen teewlu ñu seeti xibaar yi bitim réew yi ànd ak yéenekaay bii di BBC fàttali leen rek Africell MMJ Mobile Shop ak Sofi Milk ñoo dépassé xibaar yi. xibaari bitim réew yi dañ koy tàmbalee ca réewu Democratic Republic of Congo foofa nag xamle nañ ne eh, ki nga xamante rek moom moo nekk opposition eh, candidate bi lee ñu gën ko ràññee ci Martin Fayulu eh, moom nag daal dina yëkkati ab kàddoom nag jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Electoral Commission bi ca réew moomu gannaaw bi nga xamante rek ñu ngi ci presidential election yi te carte yi ñu ngi koy compter te noppeeguñu moom Martin Fayulu nag wax na ne buñ soppi mukk li nga xamante rek moom moo xew ci presidential election yi ca réewu Democratic Republic of of Congo ndaxte wax na ne daal jamono ji askan wi xam nañ nan la fa élection bi tëroo kayitu xibaar yi continué di xam ne daal ñi nga xamante ñoom ñoo bokk ci ñi doon saytu doxalin élection yi ci réewu Democratic Republic of Congo gën cee bari ci ñoom nag wax nañ ne élection yi dafa am rëg-rëg yi nga xamante rek xew na foofa président bi nag mu di Joseph Kabila moom nag xam nañ ne dafa war a tekki ab nombal tànkam gannaaw bi nga xamante ne fukki at ak juróom ñett mu ko jiite di di réewu Democratic Republic of Congo waaye jamono ji nag constitution yi xawma daal moom moo ko mayit pour mu sàkku li nga xamante rek moom moo nekk ñetteelu mandat ci biir réew moomu eh, te dig waa réewu Democratic Republic of Congo ne daal eh, dina leen daal di gunge ci élection yi nga xamante ne élection yu muccib ay lay doon mu nekk njëlbeen yoon ñuy gis lu nu mel ci réewu Democratic Republic of Congo eh, kayitu xibaar yi di xam le ne lu jëm ci wàllub compte carte yi wala boog yéebaane carte yi daal wax nañ ne loolu ñu ngi ko doon séentu lu mën a xew ci dimanche booba eh, te nag dañ ko ba max ba ci te loola nekk na li nga xamante ci jamono ji eh, politiciens yi ak askan wi ci réewu Democratic Republic of Congo ñu nga xamante ci eh, na ñu ngee ndëngandeku Electoral Commission bi ci carte yooyu nag nee nañ am na meeting bi nga xamante rek ñaari njiit yi lay def nañ ko mu di président bu réewu Zambia ñu gën koo raññee ci kii di Edgar Lungu ak président bu South Africa mu di rama Ramaphosa wax nañ ne ñoom ñaar ñëpp am nañ nangutoo daal ne daal dinañ daal di jàppale réewu Democratic Republic of Congo pour rek ñu daal di génn ci jàmm ci presidential elections yi nga xamante rek ñu ngi si ci jamono ji comme ni ko xibaar bi la andee benn tey buñ fa bàyyeekoo dañuy dem seeti beneen xibaar ci biir réewu Soudan Soudan na xam ne ne jamono ji bu fekkoon ne am na ñu bëri ñi nga xamante rek ànduñ ak président Omar Bachir euh, pour rek mu daal di jiite réewu euh, Soudan te ñu ngi doon sàkku pour rek mu tekki ab nombal tànkam ci ab ñaxtu yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ci réewu Soudan wan nañ ne bii yoon nag gis nañ ay téeméeri nit yi nga xamante rek ñoom dañ ànd ci nguuru euh, président omal al Bachir ci biir réewu Soudan ndaxte kat am na ñaxtu bi nga xamante rek ñoom it ñu ngi koy dox ci capital bi mu di Khartoum foofu nag ñu ngi wane ne ñoom ñu ngi ànd ak seen président bi mu di omal Al Bashir eh, te nag dañ ko war a bàyyi mu continuer jiite bi nga xamante rek moom la jiite lii di réewu eh, Soudan doo xam ñaxtu bi nag wan nañ ne ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk ruling party bi ñoom ñoo ko daal di organise maanaam ñoom ñoo ko oote ci biir lii di réewu Soudan pour rek wane ne askan bi benn tey ñu ngi ànd ak ki nga xamante rek moom moo nekk omal Al Bashir gannaaw bi nga xamante ne ñenn ci askan wi ñoom nag génn nañ ci mbedd bi di dox ñaxtu di wane nag président Omar Al Bashir dafa war a tekki ab nombal tànkam tant que président bu ak police yi euh, looloo waral nag i bakkan comme ni ko xibaar bi li àndee ñaxtu bii nga xamante rek wax nañ ne lu ñuy sàkku may pour président euh, moom moo nekk state owned Soudan TV bi la mu di Soudan seen national télévision bi ñu ko doon génnee di ko wan ñi nga xamante ñoom ñoo nekk askan wi ci biir li di réewu euh, Soudan ba looloo waral nag wax ne jamono ji daal ñu bari ñoom li ñuy sàkku may capitaine Omar Al Bashir mu continuer jiite lii di réewu euh, Soudan wane ne ndaje bi nag ñu ngi ko def ci capitale bi mu di Khartoum ci bërëb bii ñu gën a ci Green Square euh, comme ni ko xibaar bi lee andee wane ne ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci gannaaw ñaxtu yi pour rek gis ne président Omar Al Bashir dina tekki ab nambal tànkam ñooñu tamit am na ñaxtu bi nga xamante ne rek ñu ngi koy waajal ndaxte doxam ñaxtu bi daal ñu ngi koy def foofale ca pencam ndaw réew mi wane ne foofa dañuy dem ba ci ki nga xamante ne moom moo nekk Speaker of bi nga xamante ne génnee président Omar al en tant que président bu réewu Soudan li ko waral nag moo di cher bi nga xamante rek moom la mburu cher ci biir réewu Soudan ak lu jëm ci wàllu diw bi war nañ ne loolu moo waral askan wi naxar loolu lu génn ci mbedd yi waaye mujjanteel mi nag lu ñuy sàkku may président Omar al Bashir mu daal di leen abal li nga xamante ne moom moo nekk boppi réew nii benn tey buñ fa bàyyeekoo dañuy dem seeti beneen xibaar rek ci président Donald Trump bu United States of America moom nag kayitu xibaar yi xam lañ ne nag kàddoom yu njëkk yi nga xamante rek mu nga bàyyeekoo foofule ca Oval Office bi wax nañ ne nag génnee na ko niki démb ci guddi comme niñ ko jàngatee kàddu yi nag wax nañ ne mu ngi ko jëmalee ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu immigration maanaam nit ñi nga xamante ne ñoom ñuy dee dugg ci biir réewu United States of America eh, te nag duñ dee dugg ci anam yi nga xamante rek loi daf ko rafetlu ci biir réew moomu eh, loolu looloo waral nag président Donald Trump mu oolu United States of America ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk seen démocrates yi pour rek ñu daal di dooleel lii nga xamante ne bu ngi koy sàkku euh, pour mu am fence bi nga xamante ne dina ko tabax ci diggante réewu United States of America ak ñu di réewu Mexico euh, ci seen border bi pour rek mu daal di wàññi loola ndaxte wax na ne lii musiba bu rëy la bi nga xamante ne rek doomu réew United States of America yëpp la sonal ah, wax nañ li lii nekk na li nga xamante rek il faut ñu jël si am matuwaay te benn matuwaay rek moom mun a saafaral mbir mi mooy ñu tabax ab fence bu dox ci diggante réewu United States of America ak ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk réewu à ah, Mexico waaye nag wax nañ ne démocrates yi ñoom nag ñoo ëpp doole ci pencam ndaw réew mi wax nañ ne ñoom ànduñ ci loola ndaxte kat loola ne nañ duñ ko jox kii di Donald Trump rek mu tabax fence boobu Donald Trump nag wax nañ li muy saako ci koppar buñ ko xaymee dina tolloo ko juróom tomb juróom ñaari billion ci koppar koppadu US dollar euh, pour rek mu mun a sampa fence bi lee nga xamante rek dig na ko askan wi euh, bu mooy campagne pour ñu dénk ko lengey euh, cerewu United States of America jamono ji nag ŋaaññi na ñi nga xamante ñoom ñoo mu ko waral ndaxte kat ñoom ñoo a dooleel li nga xamante ne mu koy sàkku ci fence bi digganteem ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekk réewu Mexico comme nu ko yéenekaay bi ne andee benn tey ci beneen xibaar rek ki nga xamante rek moom moo nekk président bu réewu North Korea ñu gën koo ràññee ci kii di Kim Jong Un wax nañ ne nemmeeku na lii di réewu China giseek naataangoom ñu gën koo ci kii di président Xi Jinping eh, kayitu xibaar yi di xam le nag ni ki démb la président bu réewu North Korea bi li eh, dugg ci ab tiréem nag dem téere ji foofu la ca réewu eh, China ndaxte wax nañ ne nag gannaaw bi nga xamante rek dal na ca réewu China am na mitin bi nga xamante rek am na ko ak naataangoom bi le mu di président Xi Jinping te comme ni ko South Korea andee wax nañ ne jàngaat nañ si nag am na li nga xamante ne moom moo nekk ñaari mbir yuñ ci waxtaanee euh, bu ci gën a fës nag mooy bi nga xamante ne war naa xew ci diggante réewu North Korea ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk réewu United States of America ndaxte ñaari njiit yi lee mu di Kim Jong Un ak président wax nañ ne tase woon nañ waxtaan lu jëm ci wàllub jàmmoo ci diggante ñaari réew yooyu ak àdduna wërngal képp waaye nag wax nañ ne boobu ba léegi nag amut ñaareeli meeting bi nga xamante ne am nañ ko loolu la ñuy waajal euh, loolu nag moo waral président bu North Korea bi lee mu di Kim Jong un euh, dem ci biir réewu euh, China pour waxtaan ak ki nga xamante ne moo nekk président bu China euh, mu di président Xi Jinping ci wàllu gisee boobu mu war a def ak président bu United States of America ñu gën koo ràññee ci kii di Donald Trump wax nañu nag ci ab train la dugg bàyyi ko North Korea dem foofule ca réewu China ndaxte South Korea war nañ ne jot nañ ci ab xibaar ni ki altine buy wane ne Kim Jong Un mu ngi doon génna lii di réewu North Korea doon dem ci China loolu nag li ko waral moo di kaaraange bi nga xamante ne gis nañ ko ci booda nga xamante ne moom moo dox ci diggante réewu China ak lii di réewu North Korea dëkk bii ñu gën a ràññee ci lii di Dandong wax nañ ne foofu sa Dandong nag am na hôtel bu fa nekk waaye nag hôtel bi néeg yi nga xamante ne ñoom ñoo jublu ci booda bi daal nanguñ kenn dugg foofa lu ko waral moo di bugguñ train bi nga xamante ne moom moo jëlee président bi mu di Kim Jong Un ca biir réewu North Korea di ko yóbbu ca réewu China pour rek nit ñi daal di ko gis tamit gis nañ fa kaaraange bu takku war nañ ne niki démb nag ñaari nguur yëpp mu di bu North Korea ak China ñoom nag gaaral nañ Biden Kim Jong Un nemmeeku na lii di réewu euh, China bu loolu weesoo nag gis nañ kaaraange bu takku bi nga xamante ne nii euh, China indil nañ ko ko ci seeni capital bi euh, bu mu fa comme ni ko xibaar bi lee andee. mu mujjeenteelu xibaaru bitim réew ki yéene ka abile di BBC dañ koy daanalee eh, ca réewu Venezuela Venezuela nag xam ne nañ ne jamono ji ki nga xamante rek ab George la ci seen Supreme Court bi muy woo ci Christian Zappa moom nag dafa daal di daw bàyyi di réewu Venezuela dem laaxu ca réewu United States of America eh, foofa nag wax na ne dafay uñu sutura kii di eh, président Nicolas Maduro ndaxte ne na président Nicolas Maduro nag ni nekk di jiite réewu Venezuela tegu ko ci yoon ndaxte kat dafa nekk di bunu xatal di not ñi nga xamante ñoom ñoo nekk doomu réewu Venezuela. veela yi waaye tamit lu jëm ci wàllu atte yi néegu attekaay yi mu ne président Nicolas Maduro dafa teg loxoom ndaxte kat yenn saa yi moom mooy wax néegu attekaay bi la mu di Supreme Court bi nan la ñuy attee ci attee yi nga xamante ne ñu ngi leen ko àggee ci biir néegu attekaay yooyu moom kii di Mr ñoom ñoo gënoon a dooleel président Nicolas Maduro ndaxte ci atum 2016 ne Nicolas Maduro jëfandikoo woon na ab dooleem gis ne daal dafa daal di dàqalu ñi nga xamante ñoom ñoo nekk eh, député yu nekk ci pencam ndaw réew réew mi seen doole bi nga xamante ne am nañ ko ci biir di réewu Venezuela pour mu a def li nga ne moom moo ko saf ca réew moomu te nag bu mu bi la di Mr Zappa euh, daf ko dooleel rafetlu loolu mu def ci biir réewu Venezuela ci atum 2016 waaye nag bii yoon wax nañ dafa laal li mu daw dem làqu ci biir réew United States of America biñ ko laajee nag na ne euh, président Nicolas Maduro dafa nekk di jaay doole ndaxte kat nguuru jaay doole euh, la jiite ci biir li di réewu Venezuela te élection yi nga xamante rek def nañ ko ba mu am ci ndam mu ne élection yooyu jaarut yoon Nicolas Maduro dafa sàcc carte yi mu daal di ko moomale euh, boppam kon nag warta jiite lii di réewu euh, Venezuela élection yi nag wax nañ ne laata ñuy see dugg sax am na réew yi nga xamante ne wax nañ ne ak lu munti génn ci élection yi ñoom duñu ràññee élection yooyu bokk na ci réew United States of America Canada ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk mbootaay bi leen bi di European Union bi ñoom ñëpp àggee woon nañ seen kàddu euh, lii di nguuru Venezuela bi comme ni ko xibaar bi la andee gannaaw buñ jógee ko ci élection yi nag wax nañ ne fukki réew ak ñeneen oolu nañ seen ambassadeur yi nga xamante ñoom ñoo leen teewaloon ci capitale bu Venezuela mu di Caracas loolu yëpp pour wane ne daal ànduñ ak nguuru président Nicolas Maduro mujjeenteelu xibaaru bitim réew ki yéen kaay bi di BBC su ko defee ngeen teewlu ñu seeti yeneen i xibaaru bitim réew yi ca réewu Sénégal. lii mooy seeni xibaar yi fi ruusee si biir bëccum Sénégal benn tey rek mbokk yi fii ci Star TV rek dañuy dellu si rek ànd ak xibaar yi nga xamante ne rek moom lañ jëlee eh, ci réew Sénégal ci buñ koy tàmbalee daal moo di ci ñaar yi nga xamante ne rek jamono ji eh, li nga xamante ne moom lañ namu mooy pour nekk candidat ci presidential election yi ci atum 2019 bokk na ci kii di Khalifa Ababacar ak ki nga xamante ne moom moo nekk Karim Meïssa Wade waaye nag wax nañ ne jamono ji fu mbir mi nekkee daal mooy ne eh, jamono ji nag leeragut ne ñaar ñii dinañ war a mun a nekk candidat ci presidential election yi donte nag carte yi nga xamante rek àggee nañ ko constitutional council bi ànd nañ ci loolu te constitutional council bi jàpp nañ ne matal nañ loolu nga xamante ne ñu ngi ko doon sàkku ci ñoom waaye nag wax nañ ne dafa am leneen lu des ndaxte dafa am beneen matuwaay bi nga xamante ne constitutional council bi war nañ koy jël ci candidate yooyu nga xamante ne rek àggee nañ leen eh, seen i signature yooyu ndax dinañ war a mun a nekk candidate ci presidential election yi am déet wax nañ ne nag eh, jamono ji ñaari candidate yi le mu di Karim Wade ak ki nga xamante ne moom moo nekk Khalifa Ababacar eh, jamono ji nag dara leeral gud askan wi ne ndax dinañ nekk candidat ci présidentielle élection yi am déet li ko waral moo di euh, kii di euh, Khalifa Ababacar moom nag jamono ji dañ ko àttee ci déggu àttekaay yi ne nag dafa jaawale poosam ak keesu municipalité bi nga xamante ne moom la jiite woon euh, waaye nag wax nañ ne loolu ñu àttee ko ne dafay tëdd ci kaso yi toll ci juróomi atu yàlla waaye tamit fay koppar yi toll ci juróomi million ci kopparu CFA wax nañ ne loolu moo waral nag ñu jàpp ne du mun a bokk ci élection yi la waaye nag ñi mu àndal jàpp nañ xamante ne moom moo nekk élection yi euh, pour kii di Khalifa nekk ab candidat jàpp nañ ne benn tey loo loi may na Khalifa Ababacar pur mu nekk candidat ci présidentielle élection yi Karim may Wade nag war nañ ne moom it dañ ko àttee woon ne daal dafa luubal kopparub réew mi gannaaw bi nga xamante ne mu ngi doon liggéeyal nguuru Sénégal bi ba loolu waral nag ñu daal di ko yóbbu ci néegu attekaay yi attee ko eh, loolu nag jàpp nañ ne mooy tere kii di Karim Meïssa Wade mu nekk candidat ci présidential élection yi waaye nag àggee na ay mbiram ñi nga xamante ñu nekk constitutional council bi te loolu yëpp jàpp nañ ne matal ko waaye nag jamono ji lu des mooy ñu def am njàngat ci am mbiram ndax na war a mun a bokk ci jongante bi am déeta jàpp nañ bu nag buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ñu ngi ko déggee ci intérieur ministre bi mu di Aly Ngouille Ndiaye moom nag na ne Karim Wade am na ID card waaye ID card boobu eh, binduñ ko ci liste bi nga xamante ne ñoom ñoo war a sànni carte ci réew moomu kon nag jàpp nañ ne bu fekkee ne amuloo li ngay sànnee carte doo mun a doon ki nga xamante dañ ci présidentielle élection yi waaye nag wax nañ ne lépp dina leer eh, ni ki weeru janvier ñaar fukki fan yi eh, ci atum 2019 bi ñu nekk ndaxte constitutional council bi ci la ñuy génnee liste bi nga xamante ne ni foofu la candidat yi nekk ñuy jongante ci présidentielle élection benn tey buñ fa bàyyeekoo dañuy dem seeti beneen xibaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk catholique church bi ci biir réewu Sénégal ñoom nag wax nañ ne eh, dinañ bokk ci wàllu saytu élection yi ci biir réew moomu ci atum 2019 bi lee buñ sukkandikoon rek ci kàddu yi nga xamante ne nii ñu ngi ko déggee ci ki nga xamante ne moom moo nekk seen secrétaire général bi eh, mu di aboot Alphonse Seck Abbott Alphonse sekk nag wax nañ ne moom moo nekk secrétaire général of the interterritorial eh, episcopal commission of justice and peace wax nañ ne moom nekk nag ki nga xamante ne wiral na ab kàddam di xamle ne luñ def ci atum 2012 moom la ñuy dellu defaat nag ci atum 2019 bi lee bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu wàllub doxalinu élection yi ndax élection yi jaar na yoonam déeta mu ne nag lii ñu ngi ko tàmbalee ci waxtaan ak askan wi waxtaan ak politiciens yi et ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ndaw yi eh, ci wàllub sànni carte yi te présidentielle élection bii nag di jàpp nañ ne juboo amul ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite élection ak ñi nga xamante ñoom ñoo war a bokk ci élection ci boppam looloo waral nag saytu nañ ci ab yëngu-yëngu wala boo ko ñàkk a déggoo looloo tax nag wax nañ ne jamono ji il faut nit ñi ñëpp jóg euh, takk seen i ndigg fexe ba gis ne daal dinañ dox tànku jàmm ci presidential elections yi nga xamante ne Sénégal war na see dugg ci atum 2019 ba looloo waral nag ñoom catholique church bi euh, wax nañ ne nag liñ def ci atum 2012 moom lañuy dellu defaat ci atum 2019 bi lee ban tey ci beneen xibaar his excellency président Macky bu réewu Sénégal moom nag uh, bu mu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk magistrate si uh, ñi féete ci wàllu atte yi ci néegu atteka yi lim leen dig daal moo di ne uh, nguuram gi nag dinañ leen dooleel ci réew moomu ndaxte kat jàpp na ne justice bi dafa nekk buntu bi nga xamante ne buntu bu am solo la ci réew mi nekkut comme yeneen façon yi buntu yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci nguur gi kon nag mu ne lii dafa nekk li nga xamante ne rek buntu bu doy waar la waaye tamit bunt bu am solo la jamono ji nag nit ñi nga xamante ñoo dee jóg di ŋàññi justice bi eh, di leen yëkkal lu mel ni xeme président Macky Sall mu ne jeex na ndaxte nguuram gi dañ ci taxaw temm ba gis ne loola du ñaareel ca biir réew moomu mu ne xam na ne ci at bi nga xamante ne moom lañ weesu justice bi nag eh, daal nañ sonn ndaxte kat lu nekk yëkk nañ leen ko waaye loolu taxul def nañ seen liggéey te nag ñoom dañoo tëddee njaaxanaay ci atte yi nga xamante ne ñu ngi koy atte ci réewu Sénégal kon nag mu ne président Macky Sall mu ne moom daal li muy dig justice bi mooy ne daal moom ak ay jëwrinam daal mu di exécutif bi ci nguuram gi dinañ leen jàppale lépp lu mu war pour gis ne daal dinañ am seen i kaaraange bu day waaye tamit dinañ def seen liggéey ni mu waree ci réew moomu moom président Macky Sall ak yi jóorinam daal dinañ ko def ci biir lii di réewu Sénégal mu ne donte dañ leen di faral di xas di leen saaga di leen yëkk lu nekk euh, di leen daal di euh, dëkku waaye mu ne loolu taxul justice bi daal ñi nga xamante ñoom ñoo ko ŋànk ñu ngay def seen i liggéey ni mu waree ca réewu Sénégal mbokk yi benn tey bu ñu fa bàyyeekoo dañuy dem seeti ndaje bi nga xamante ne moom moo xewoon ca diwaanub jam ñaajo eh, ci eh, conference centre bi nga xamante rek moom mooy bu Abdou Diouf wax nañ ne foofa nag ñii di CAF mu di Confederation of African Football ñoom ñoo fa oote woon ab ndaje bi nga xamante dañ fa daan tànn ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xarañ ci wàllu football eh, ci at bi nga xamante ne moom lañ weesu mu di atum 2018 bi li ñu ngi fa doon joxe ay ndàmpaay nag mu jëne woon ne weerub janvier juróom-ñetti fan yi ci atum 2019 foofa nag xam nañ ne daal li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu ndaje booba am na ndaje yu bëri yi nga xamante ne am nañ ko foofa waaye tamit di li nga xamante ne ràññee nañ ko foofu mooy ay borom nambal tànk ci wàllu tàggat yaram mu di football gis nañ leen foofa ndaxte kat président yi nga xamante ñoom ñoo jiite fédération yi ci réew yi nekk fii ci tundu Afrique gis nañ leen foofu ay ndaanaan yi nga xamante ne ñëpp xam nañ leen ràññee leen ci wàllu football ci àdduna wërngal képp ñooñu tamit gis nañ leen foofa wax nañ ne président bu réewu Liberia mu di George Weah moom it gis nañ ko foofa président bu euh, FIFA ñu gën koo ràññee ràññee ci Gianni Infantino gis nañ ko foofu secrétaire général bu FIFA mu di Fatoumata Samoura moom tamit mu nga fa woon ak ñeneen ñi nga xamante ne nii ay borom ndombal tànk eh, ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu football ci àdduna wërngel képp ñoom ñëpp wax nañ ne ñu ngi teewoon ci capital eh, bu eh, Sénégal ci bitim capital bi mu di Diamniadio pour rek ñu daal di teewee li nga xamante ne moom moo nekk ndaje bi kaaf oote wax nañ ne am na football match bi nga xamante ne rek xewoon na ñu tuddee ko ki nga xamante ne moom moo nekk Bokandi pour fàttaliku ko xamante ne génn na ko àdduna waaye tamit liggéey bi nga xamante ne moom la liggéey ci wàllu football wax nañu nag loolu waral na Sénégal seen génération 2002 bi euh, ñoom nag ñoom ñoo simmeeku jongante ak ñi nga xamante ne ni ñoom lañ ràññee ne dañ xarañ ci wàllu footballu Africa euh, bokk na ci ki nga xamante ne moom moo nekk Didier Drogba ak yeneen ndaanaan yi war nañu nag euh, match bi ni mu fa demee mooy dañ duma gaynde yu Sénégal yi ñetti bal ci ñaar El Hadji Diouf nag war nañ ne moom moo nekkoon capitaine bu gaynde yu Sénégal yi nga xamante ñoom ñoo nekk génération 2002 bi bu loolu weesoo nag war nañ ne dafa am executive meeting bi nga xamante rek ñi di kaaf am nañ ko foofa tamit jël nañ fa am ndogal moo di nag leen di jox jongante bii ñu tuppee ci African Cup of Nations bi pour ñu daal ko defee ci seen i biir ci atum 2019 bi nga xamante moom lañ nekk ni lee wax nañu tamit am na leneen li nga xamante ne nañ ko foofa ndaxte coach Aliou Cissé moom it bokkoon ci nga xamante war nañ laa tànn jox leen ndàmpaay ak Sadio Mané waaye ñoom ñaar ñëpp wax nañ ne amul kenn kuñ ci tànn kon nag li nekk na li nga xamante nii jamono ji wax nañ ne euh, duñ ci mun a fàttaleku ñaar ñi ne mu di coach Aliou Cissé ak kii di euh, Sadio Mané ndaxte ñoom ñaar ñëpp dañoo rate dañoo luppe li nga xamante ne moom moo nekk jongante yooyu kenn rek lañ jox ndàmpaay ci sénégalais yi moo di seen jiitu réew mi di excellence si président Macky Sall ndaxte wax nañ ne CAF daal nañ ko jox ndampaay bi nga xamante ne moo di ne ràññee nañ liggéeyam bokk na ci ñu gën a xarañ ci li nga xamante ne moom moo nekk tundub Afrika ci wàllub dox tànku jàmm moom kii di président Macky Sall ba looloo waral nag ndàmpaay buñ ko jox nañ ne buñ ko waree euh, daal di xayma ci koppar dina toll juróomi téeméeri million ci kopparu CFA wax nañ ne loolu lañ jox ndàmpaay kii di président Macky Sall mbokk yi benn tey buñ fa bàyyeekoo dañuy dem seeti beneen xibaar rek eh, ki nga xamante ne moom moo nekk président Macky Sall ki nguuram wax nañ ne ñàkk nañ àtte bi nga xamante ne rek ñu ngi leen ko doon àtte ci cour of bu nekk foofu la ci réewu France seen dëkk bi la di Monaco ndaxte kat wax nañ ne eh, Monaco seen cour of bi eh, ñii di président Macky ki nguuram gi dafa am li nga xamante ne moom lañ fa àggee moo di àtte bi nga xamante ne defoon nañ ko. ni ki weerub janvier até bi nga xamante defoon nañ ko ni ki weerub julaay fukki fan yi ci atum 2018 ne daal koppar yi nga xamante ne moom la Karim Wade am ci biir réewu euh, France ak ñi nga xamante ne ñoom lañ boole woon até kii di Karim Wade war nañ ne duñ ko mun a daal di jël nangu ko jox ko ñi nga xamante ñoo nekk nguuru Sénégal bi te nag nguuru Sénégal bi loolu lañ doon sàkku waaye dañ leen ko aaye woon ci weerub julaay fukki fan yi ci atum 2018 ñu daal di rek delloo mbir mi ci cour of appeal bu nekk foofu la ca Monaco ni ki altine janvier juróom-ñaari fan ci atum 2019 waaye loolu tamit dañ ko mujjee dàqaluwaat dafa mel ni eh, kii di Karim Meïssa Wade nag benn tey mu ngi am ndam ci loxo ci kaw nguuru eh, président Macky Sall comme ni ko xibaar bi lee andee benn tey buñ fa bayekoo dañuy dem seeti lu jëm ci wàllu ndàmpaay yi nga xamante rek kaaf ñu ngi ko doon joxee foofu la ca diwaanab jam ñaajo ah, wax nañ ne nag mbir mi ni mu fa demee nag jàpp nañ ne ki nga xamante ne moom moo nekk Mohamed Salah bu réewu ah, Égypte ah, kii di Sadio Mané bu réewu Sénégal Pierre-Emerick Aubameyang bu réewu Gabon ñoom nag ñoo nekkoon ñi nga xamante ne ñoo doon jongante eh, kan mooy gën a kan mooy nekk football bi nga xamante ne moo gën a xarañ fii ci tundu Afrique ci atum 2018 bi lee gis nañ ne nag ndam bi ci côté ki nga xamante ne moom moo nekk ak Mohamed Salah bu réewu yu jipa waaye tamit eh, jàpp nañ ne daal am na yeneen ndàmpaay yi nga xamante joxe nañ ko foofa ndaw bi nga xamante moom moo gën a xarañ ci eh, eh, a atum bi moo nekk fédération bu réewu Morocco bi tamit a ki nga xamante rek jamono ji ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk best team ci atum bi euh, boobu nag jox nañ ko ñi di réewu Mauritania euh, kayitu xibaar yi continué di xam leen nag di ñi nga xamante ci ñoom lañ daal di tànn dugal leen ci euh, best team of the year bokk na ci ki nga xamante ne moom moo nekk Onyango Oriyeri Benatia Eric Bailly Kalidou Koulibaly Pathé keta Riyad Mahrez Sadio Mané Pierre-Emerick Aubameyang ak ki nga xamante ne moom moo nekk Mouhamed Salah euh, comme nu ko xibaar bi lee andee euh, mujjeenteelu xibaar yi fii ci biir kër gi Star FM juróom ñeen fukk ak juróom-benn tombu juróom-benn yeeg TV su ko defee ngeen teewlu ñu ànd ak yéen ci yéen i yi dellu si waat mu yor te xam na du ma sa passé maanaam ci gàttal conseil constitutionnel nee na Alaaji Mali Gàkku mënoo bokk ci wotey 2019 yi le quotidien nañu gàkku dafa kaaw ubbil yéenekaay bi la ko tee jàll moom Alaaji Mali Gàkku ci mbiri parrainage yi moo di dafa am 756 signature yi ñu ko delloo ndax i doublon 53000 signature yi ñu ko doon laaj lu mu gàtt-gàtt Alaaji Mali Gàkku ak ñi mu àndal 52911 la ñu am te it bu dee am na lu ëpp 2000 signature ci fukki région ak benn yu nekk ci réew mi demeewul noonee ca Kaffrine région yooyee fa la Alaaji Malick Gakou daano Vox Populi nañu Malick Gakou fekki na langu fukki candidat ak juróom-ñeent yañu kale ca conseil constitutionnel léegi juróom-ñaari candidat kot suñoo nekk gum ci course bi mu di Macky Sall Ousmane Sonko professeur Issa Sall Karim Wade Khalifa Sall Madické Niang ak Idrissa Seck ñoom it ñaar fukki fan ci weeru janvier ca la ñuy xam ndax danañu mën a bokk ci wote présidentielle yi 2019 yi am déet Idrissa Seck muy siiñ maître Madické Niang

toll ci wut ay soutien ak di dajale mbooloo mu leen a jàppale l'observateur nañu li ñu naan xàcc woo gis wërsëguwaay la loolee moo am ci mbiri Alaaji Malick Gakou ndax Aliou Sall maire bu Guédiawaye ba mu yëgee ne conseil constitutionnel kale na Gakou mu ñëw jàppale si Macky Sall l'observateur wax na Malick Gakou wax ju daw yaram ndax nee na Malick Gakou bu newoon bokkuli koret du tee dinaa sol sama daal dox dem seeti ko jëli ko ngir mu ñëw ànd ak man ñu ànd jàppale président Macky Sall l'observateur ba tey ci xalim ak Amari Gueye moom Aliou Sall da doon conférence de presse démb ca géejawaay leeral na fa coowal foncier yi ñu koy tuumal ak di ko ci tudd ca géejawaay tegaat fa Ousmane Sonko ci àndam wax ko fa luy tàkkate du fayu waxi armeel yi ñuy wax ak a jonge ca géejawaay Aliou Sall ne barab ba ñu njëkkoon a jàpp ne fa la koy def mu tolloon ci fukki hectare ak ñaar foofee ab sën la maanaam mbalit lañ fa doon tuur président Macky Sall jël na engagement ne dana miire fa a def ngi ci mboolem yéenekaay ñu xëyandool jër leen enquête njiitu réew mi Macky Sall ma ko teewe woon xam le na fa ne état Sénégal dana jël lépp lu di matuwaay ngir taxaw magistrat yi réew mi ndax suñu justice bi bari ay ñol-ñol yu mu dund fan yi te état bi du toog rekk di seetaan ñuy sàllawlu ak di fooyoyal justice u réew mi las yéenekaay nañu Macky Sall ma ngay tubayul magistrat yi réew mi jëlal na leen défense solal leen robu avocat kàddu yi mu ma moom mi état bu Sénégal lajjatina ci mbiri Karim Wade direct info moo ko bind li état bu Sénégal doon sàkku ca Monaco ga ca France mu di mu nangu teraanga ji Karim Wade am foofee teg ca loxoom sisir xaalis bi nekk ci ay compte bankam yéenekaay bi nee nañu Monaco nee na état bu Sénégal defuma journal bi nañu ginnaaw coowal Monaco ak dogal bi justice ba foofee joxe candidat parti démocratique Sénégal bi di Karim Wade mi ngi xaar léegi dogal bi war a tukkee ci CEDEAO ngir a ñibbi si Sénégal la tribune nañu Monaco na bëgg-bëgg état bu Sénégal bi doon sàkku ñu sisir Karim Wade ya ca Monaco Tico Tato mi ngi ci coow lu rëy bi l'Observateur Tico Tato mooy waajooje nga xam ne dafay def tatouage ci yaramu yenn ci ay nit journal bi di l'Observateur nañu ma nga ca loxo yoon ndax dafa am problème bu dox diggam ak benn femme femme bi boroom jëkkër la dafa demoon ca Tico Tato ne dafa bëgg a def tatouage femme bekk li mu wax enquête kat yi moo di Tico da ko bëggoon a na mu ko bëggoon a moom ndaw si yegg na fa ak enquêteur yi ba l'Observateur bindu ko waaye mënuma caa yegg bismillah mooy day dossier Karim Wade bi lee tribune yéene kaay ne waa nguur gi day waaw ma ne la xaalis Karim Wade bi nga ne nag moo nekk sa compte bancaire yi nga ne kon moom moo nekk sa Monaco ga lañ bëggoon a teg loxo waaw waaye nguuru Sénégal gi day jëlee wuñ cantam de sa Monaco déedéet vingt-quatre heures yéene kaay ne la nangu kon xaalis bi nga xam ne ma nga nekk nag ci compte bancaire u Karim Wade day sa Monaco googee waaw ko wax dama ne la tribunal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca de dama ne lii day am ndeeta luwaat la ma ne la nguuru Sénégal gi Karim Wade daal dina koy gañewaat de nguuru politique gu Sénégal gi kay nga xam ne xeex nga xam ne mi ngi xeex Karim Wade ca bitim réew yëpp doomu Abdoulaye Wade bi da leen a gañe dëgg la direction ba de nguuru Sénégal gi kay lajjati nañu de sagati nañu bi de maanaam bitim réew waaye nag ginnaaw mun naa ko ah candidat au day ma ngay xaar dogal bi nga xam ne nag moom moo war a jógee ci duñ ko fekk bitim réew ko loxo maar dey taali maar dey taali loolee la ay avocat wu Karim Wade day di xalaat seen xel day na de mbaa ko wax de fekk Karim Wade ca bitim réew goo kay daal di koy jàpp laa wax looloo tax ba ay avocat wu day daal di nañuy bind Interpol police bi kon séq waaw waaye ministre de l'intérieur day mooy organiser élection yi de maar dey taali sur quotidien kon jëlub dogal mooy Idrissa Seck ak maître Madické Niang day jàll nañu waaye alaaji Malick Gakou day éliminé nañ ko allahu akbar allahu akbar le quotidien yi nekkaa ne njiital grand parti day waaw mujjul jàll nag ci wàllum parrainage ka Gakou day door nañ ko kawo de maa la ko wax ma ne la Idrissa Seck ak maître Madické Niang waaw daldi nañu jàll kon ci wàllum parrainage ba sur saane alaaji Malick Gakou day ah nekk na léegi ASP maanaam mooy association des sans waaye alaaji Malick Gakou day nee na moom daa jaaxle ah, Malick Gakou ne waaw parce que conseil constitutionnel day man mooy juróom ñetti huit mille huit cent quatre vingt yoo xam ne day dama koo war a defaraat régulariser ko waaye man yemuma ca ndax lu dooloo ñeen fukki junni di quarante mille parrain laa la wax laa leen indil conseil constitutionnel bañ eh waay Samba niital grand parti ca parce que Alaaji Malick Gakou nee na conseil constitutionnel daal may nangul lu dooloo fukki région ak benn laa la wax Gakou kay li mu am ñu bëree bëri amuñu ko waaye daal di may jox cinquante deux ma mi andi nañ ko ci élection présidentielle yaa ilaha illallah waaye bu ko andee jàpp ne ne gis nga Karim Wade Khalifa Sall waaw ñoo cay topp de marti itali njiital gëm sa bopp ne waaw la mu bëgg a def mooy sàcc élection yi laa la wax te Macky Sall fa mu nekkoon foofee la nekk ba léegi ni la mooy éliminer ay adversaire politique bu gaan ngay dañuy day libération yéene kaay nee na jox na nag rendez-vous askanu Sénégal rawatina ay militant tey di la ci àllarba ji day ca place de l'Obélisque ngir opération faxas Macky a a tooy rek li jaaxal ñëpp ah, waaw waaye ne daa yor booyee bi ñuy woowee fajar eh way samba waaw benn seen milliardaire la ndekete ko eh, mooy rek di tel maître ma di ñaadi waaw terminé yéene kaay ne waaye alaaji Malick ko nga xam ne day éliminé nañ ko Aliou Sall di meeru géejo waay day kontaan ca lool ay eh, waay jële ay eh, waay jële exclusive yéene kaay ne mën caaxaan caaxaan gu bon rek booy Aliou le petit la xam lu bon rek Aliou Sall yamu ca dee déedéet parce que da caa am waaw Aliou Sall ne alaaji Malick ko day maa mu ñëw nag ànd ak président Macky Sall Aliou ni de bu ñu éliminé gàkku kay dëgg la danaa da koo waaye maa ngi koy woo ngir mu ñëw jàppale président Macky Sall président Macky Sall day tribune yéene kaay ma nga woon te rentrée des cours et tribunaux la c moom Macky Sall moomee mujj naa soppe ko avocat u magistrat yi enquête yéene kaay ne dëgg la xaxar xaste gi nga xam ni kon moom la ñuy def nag wàllum justice bi président Macky Sall day waaw nee na gi daal matukaay yam mat yëpp dana ko ci lu mu laaj danañ ko ca def ngir défendre laa la wax ci fànn li muy dund daa yi doy xaar ba réew yi mbuus ñuy doog a jóg déedéet Mamadou Badio Camara ci 24 heures waaw nee na magistrat yi day kenn du leen xoñañal te kenn du leen tiital laa la wax leesi ko yéene kay ne songo bi nga xam ne kon ñu ngi koy songo magistrat yi day waaw Macky Sall ak Badio Camara day génnee nañu yat wa de génnee nañu mbol de ba de président Macky Sall ne fii daal loi fii dox yoon force restera à la loi te nguur gi nag matukaay ya war yëpp danañ ko tëjal ba mu neex ngir défendre magistrat yi laa la wax Abdoul Mbaye ci Dakar Times waaw nee na sama baay day le suisse ba mbay ah, wallaay bu doon moom la kenn du ko alifa di ko manipuler mukk te Macky Sall nag dinaa leen xamal leen mu wax ne moom la am ci xaalis déclaration de patrimoine ak la mu am bokkul fausse déclaration de patrimoine la def parti de du ay Abdoul Mbaye ne maa ko wax te na leen xamal leen gis nga Macky Sall ci boppam war ta bokk ci candidat yi wax dañ ko war a éliminer waxul nit ñi laast Assane Diouf day waaw weeru février bii di ñëw nii la koy bàyyi waaye nee nañ ko wax de ñaari atu yàlla bokk na sa juróom-ñeenti wax la dul defati enquête yéen candidat ñetti atu yàlla kay kii de Assane Diouf ba noppi tëj gémmiñam nga libération yi ne kay ne soowal cambrioleur yi ñu tegoon leesi ko yéene kay ne Papa Diouf waykat ak Wally Seck waaw c'est la guerre totale mar day tali seytaane duggaat na si diggante dama ne Papa Diouf day ci benn audio dañ koy tuumal ne moo ci saaga kii di Wally Seck waaye Papa Diouf yeddi na ko de ba tëdd ca suuf nee na loolee du moom kor bébé baas yamu ca parce que Papa Diouf day songo Wally Seck nag ak waa këram waaw Papa Diouf ne ko man duma ko yàq ci ko xale man Papa Diouf kenn mësuma dégg ci ay coowal trafic oto te kenn mësuma dégg ci coowal waaw bettul kenn laste Sadio Mané ak Aliou Cissé day waaw dañ leen a gagné nañ leen fii ci seen biir réew laa wax meilleur joueur Mohamed Salah gagné na Sadio Mané meilleur entraîneur Hervé Renard gagné na Aliou Cissé léegi ko yéene kaay ne Sénégal gay zéro point la fi am laa la wax Macky sal dee ñu sagal sax jox nañ ko bopp raayo surtout année Sadio Mané day waaw Mohamed Salah jaar na ci kawam de Hervé Renard day yaakaar waa la bu mu la tas yéene kaay gi ne Sénégal gay jël na benn daal di koy wanteer sandi un milliard noonu ci mbedd mi <laughs> Eh, alaaji man de dama yaakaar ne xanaa nguur gi xamuñu farata yow champion d'Afrique yi bit si soccer ñu ngi nii gagné coupe d'Afrique recevoir uñu leen sax arbitre yaa ngi nii subvention ko am moo tax boo paree mën a mbokk yi jërëjëf gannaaw buñ bàyyeekoo Ahmed Aydara dañuy dellu si waat ak yéen ci biir kër gi fii ci Star TV rek su ko defee laata ñu tàggatoo rek tëj programme bi dañuy dem seeti Euh, conflicting reports yi nga xamante ne rek jot nañ ko fii ci biir kër gi ndaxte kat jot nañ ci xibaar yi ne Eh, ki nga xamante ne moo nekk njiitu réew mi di His Excellency président Adama Barrow eh, moom nag daal dina eh, jëfandikoo sàkku bi nga xamante ne rek waa farabaa ñu ngi koy sàkku gannaaw buñ bindee ab bataaxal ci moom di ko wan ne daal dañ bëgga pour ñu daal di bàyyi njàngat ak kis-kis yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ci lu xewoon foofule ca Faraba bañ mu am ñu si ñàkk seen i bakkan waaye tamit ñu ñu waroon naa yóbbu ci kanami luwaa pour ñu àttee leen ñooñu tamit pour ñu daal leen jéggal te njiitu wax na ne moom jéggal na gars te bàyyi na loolu lépp waaye nag gis nañ ne kàddu bàyyeekoo na ci ministry justice ñuy wax ne nag euh, loolu nekk na loo xamante ne nii rek njiitu réew mi ci boppam moom luwaa may ko doole booba pour mu daal di euh, jéggal euh, ñooñu nga xamante rek lu waa na ne am nañ loxo ci ñaawteef boobu xewoon la ci farabaa nan nga jàngatee mbir mi Omar. jërëjëf Seydou foog naa ne mbir mi daal li ma ko jàngatee dafa mel ni. jokkalante moom moo amul ci diggante President's Office ak Attorney General's Office mooy. jërëm bi dénk wàllum luwaay fii si man parce que man foog naa yu mel ni su waree am président bi dafa war a oo ki nga xam ne moom moo ko dee xelal si wàllum luwaa te kooku jamono ji moom mooy Aboubacar Tambédou lépp li nga ne moom moo aju si wàllum yoon bala moo jël bépp décision wala bépp dogal bu mu war a def foog naa ne war a war na mun a jokkoo kooku rawatina nag comme ministre bi lañ fi wax because ministre bi ñu ne lettre bi dañ ko adresse président bi amaana xëy na dafa am ñu ko wër ñi nga xam ne dañ ko advice wax ko ne léegi mun ngaa jégal ñi te fekk sax moom dégluwul sax ministre of justice liñ koy advice te ñu ñu bay right ñun ñoo ko war a ci lépp li nga xam ne moom moo leen teg seen kaw because président bi boppam moom moo sosoon commission

foofu dafa mel ni da nga at danga da jaay foofu doole. man li ma bëgg a xam mooy jamono ji lan mooy njëriñi commission bi nga xamante ne président Adama Barrow sos na ko. Euh, donte presse commission bi dañ ko sosoon pour ñu xam fan la dëgg a féete ak ñu am loxo ci incident bu xewoon foofule ca Faraba su ko defee ñu mun a doxal justice ndaxte nit ñi nga xamante ñoo ñàkk seen i bakkan ci loolu ñooñu euh, disaaf nañ li nga xamante ne moom moo nekk justice waaye tey buñ toogee ba di joxoñ ay baaraam di wane diw am na ci loxo diw am na ci loxo njiiti réew mi ñëw toog ne euh, jéggal na ñëpp te bàyyi na lépp loolu lan la nduru fii ci biir réew waaw comme li nga wax la rek dafay dafay nasaxal bi benn amatul njëriñ amul njëriñ benn ba pare ñaareel bi mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan dafa mel ni sax joxul leen cër bu ñu leen waajoo because ñooñu rek moo leen a seen diggante ak ñi def ñaawteef bi benn tey amaana mën nañoo dem ne ah, kooku baalal la ak ki nga xam ne kooku da nga violate right am kooku jamono yi génn na àdduna kooku leen rek mooy mun a tàng mu mu atte mu am seen diggante mooy ngeen dem justice justice def warugalam def atte bi nga xam ne moom moo war su ko defee atte na leen seen diggante waaye even family bi seen boppam mënuñoo wax ne rek baalaal nañ leen ñoom mën nañoo wax seen yéene seen yéene mun naa rafet waaye nag ñeneen ñi nga xam ne dañoo violé seen rights sa jamono ji moom moo nekkoon di am dafa mel ni président bi right now moom ak waa community faraba yëpp dañ dañ boobu noonu dañ fa violé ba pare press bi sax xam nga li si gën a garaaw mooy ne ñoom buñ ko bindee ba pare office of the president bu ñu seen press président bi si yan luwaa la nekk de sukkandikoo pour def lu mu def noonu ne moom laay léegi dañoo discontinue process bi nga xam ne already is in judicial xam mooy euh, ndax nit ñi victimes yi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon ci Faraba incident bi ndax ñëpp ànd nañ si ne waaw jéggal nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo am loxo ci fitna bu xew foofu ca Faraba xam nga loolu tamit is another question mun nañoo ñëw ak seen lettre di wax ne waa Faraba nangu nañ pour ñu daal di génne dàqalu commission bi jéggal ñu si amoon loxo fekk nit ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo am góom gi ci boppam ci biir Faraba amaana ànduñu si waaw loolu tamit dafa soxla woon yaakaar naa consultation pour ñu xam kenn ku ne fan la fi te man ma yaakaar ne presidential pardon daf d am waaye presidential pardon dafay am gannaaw bu luwaa jëlee dogalam ba noppi sentence la ba noppi condemn la foofu loi may na président pour mu pardon la su fekkee ne bugga na laa pardon bu sukkandikoo ci loi xam nga léegi waaye nga xamante ne mu ngi ci loxo loi te pareeguñ sax ñu ngi def ay investigation commission baa ngi sosu xamaguñ fan la mbir mi eh, eh, eh, di di di di di daanoo ñu naan njiitu réew mi jéggal na leen ak yooyu loolu dafa xaw a doy waar dafa doy waar parce que dafa nasaxal judiciaire système bi dafa mel ni ñu suñ judiciaire moom moomut boppam xam nga ñu doon wax ne ñu Gambia suñu judiciaire bi dafay moom boppam dañuy fa nekk dañoo def seen liggéey fekkat du am benn executive euh, interférence bi nga ne a wrong moom la wax loolu wrong choice of words la tànn foofu te mu wax ko te loolu ñoom ànduñ si benn yoon ba pare si loolu ñu fii ñu ne press from president uh, as unfortunate choice of words li nga xam ne président bi wax na ko li mu wax noonu waru koo wax te loolu doon loo xam ne ñun dañ koy ñaawlu benn ba pare ñaareel mooy comme ni nga ñoo noonu wax ko noonu ndax waa Farba yëpp wax xam ne ñooy seen doom seen doom jamono ji génn nañ àdduna ñan ñooñu seen booba communiqué nag ak gars xam nga lii yëpp dafa war a feeñ ba pare président bi dafa war a génn wax ñu ne dëgga-dëgga si lii ak lii laa sukkandikoo wala boog si buntu sarta bii laa sukkandikoo ba mun a def li ma def ni jamono ji waaye daal loolu amul précise bi wane wut ko ba pare wane ne léegi daal judiciaire système bi moom mu seen boppa nasaxal na tamit legal advice bi nga xam ne lii dafay wane nanu rawee ne politique moom moo si la because dafay mel ni dafa am ñoo ñoom ñoo ne waa président bi ne boo ko defee su ko defee ñi ñu baalal la te yow li nga wax dafa am solo yow process boo xam ne jeexagul atteeguñ nit ki sax ñii sax dafa mel ni sax because dañ leen koo xam ne yóbbuguñ ko ko pour ñu atteguñ ko si daani nga xam ne moom la ko teg yow nga jékki-jékki nga balal kooku dafa mel ni ah. so right now ñu mën a def mooy ñu génn eh, eh, prestige bi nga xam ne ministre of justice génn nañ ko ñu demaat si président bi waxtaan moom wax nit ñi ne wax nit ñi si yan sarta si yan buntu la sukkandikoo ba génne prestige boobu ba war a mun a discontinue that process because nekkul dafa mel ni léegi police mun nañoo jékki-jékki dem rey nit suñ paree ñu ne nañ dem ñu ñaan président mu baalaan leen bi ko na loolu lañ ni ko Arouna Diame rey ko dafay mel ni lu normal ci réew mi normal si réew mi Arouna ko police yi rey nañ fi ñetti nit faraba léegi dafa mel ni ñooñu dafa normal ba pare affaire si dafa mel ni waa faraba la gaa doon téye xam affaire si li si tax moom moo bari moom moo tax process bi da ko war a bàyyi mu dem kuy atte moo atte bi soo nekka njiiti réew foog nga mat xam ne di nga def loo loolu moo mun a am ta am euh, si réew Gambien ne Gambien si yëpp dañ koy bugg at the same time loolu mun ta nekk dafa am ñoo xam ne luwaa daf leen daan te luwaa képp kum daan li li si luwaa waa ñu def loolu moo gën waaye raanaa soo defee lii police dañoo wax ne léegi kay suñu rayee ni sa it's normal dañoo dem si community bi ñu ñaan la ñu bind appel yóbbu ko ministre of justice ñu dem si président bi ñu ñaan ko su ko defee mu baalal dafay jékki-jékki mu baale leen comme nii te lii man si man dama ko gisee dictatorship la parce que process bu nekk ak code pareegul yow nga ne gars yi ne nañ ko fa génne nañ ko fa génne ñu baalal leen dafa doy waar rek eh, jaajëfal suñu sponsor si Africell MMJ mobile shop ak eh, Sukulik eh, ci dépassé bi nga xamante rek di pencum Sénégal bi daje ëllëg lay ñu dellu si waat ci kàttanu yàlla ah incha allah ñu delluwaat ëllëg jaajëfal ñëpp Africell MMJ mobile shop ak meew Sofi sant ak ngërëm ñeel na askan wi ñu doon seetaan fii ci Star TV dinañ leen bàyyi ci loxo yu wérte wóor rek mu di loxo Youssoufa Dabo ci seen xibaar yi ci kàllaamay Mandinka dinañ dellu siwaat ëllëg lay doon rek fii ci biir kër gi jërë ngeen jëf wasalaam